asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax te di leen ziar eh, di leen nuyoo nag fii ci kër maam Cheikh Ibrahima bi Babi dina fii ci Touba eh, ci kanamu jàmbaar jii di sëriñ di Fall moom sëñ Mour faal mbenn tey toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima faal di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax eh, te dolli ko wér di leen jaajëfal bu baax a baax di ziar mbokki ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp. Euh, noo ngi nii nag euh, ci kër gi ànd koog njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall jotaay bii nga xam ne lépp ngi jëm rek ci wàccaay waam solo bi nga xamante ne bii mooy bis bi nga xam ne euh, murid yëpp nga koy waajal mboolem fi bi nekk yaa ngi koy waajal te mooy bis bi nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mountakha mii di Serigne Touba Cheikhul ko sàkku waaye ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ngir mboolem Baye Fall yëpp ñu ñëw tudd yàlla Euh, waaye mooy zikrullah te fas yéene koo ànd ak nag mboolem jabatug maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp ak mboolem tuddukatu yàlla yi ne ci biti bi réew mi ak bitim réew ndax mboolem ku di Baay Fall woo nañ la ci bis bi bis boobu nag euh, ci loxol kii fi nekkal maam Cheikh Ibrahima bi teg muy sëñam di Fall mi nga xam ne tey mooy Cheikh Ibrahima Fall kaw suuf di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér sëriñ bi nag bi mu jotee ndigal loolu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ànd ko mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ba wut kenn fépp foo xamante ne bi rek Euh, njabootuk Cheikh Ibra ngi fa euh, tàmbalee ko ci ëttub Cheikh Modou Moustapha Fall euh, te tey jii kii leen jiite di Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng di ñaan sunu borom mu yàgg fi lool te wér waaye kër ba Bassirou Fallum maam Cheikh Ibrahima Fall tey ki jiite kër ga di Serigne Bada moom Serigne Talla Yacine ñaan sunu borom mu dool ko fa yàggal bu baax te dool ko wér kër Serigne Momar Talla Fall tey ki jiite njaboot gi di Serigne Abdou Rokhaya Fall moom Cheikh Momar Talla Fall ak mboolem njaboot yëpp ña kër Cheikh Abdoulahi Fall Ndar tey jii ki jiite liggéey bi di Serigne Talla Fall moom Serigne Abdoulaye Fall Ndar tey eh, jiite mboolem njabootu kër Cheikh Serif Assane Fall tey ki jiite liggéey boobu ca kër ga di Serigne Amdi Khady Fall di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax eh, te dolli ko wér kër Serigne Aliou Fall Mboor tey ki nga xam ne moo ne ca boobu di Serigne Cheikh Fall Mboor di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax eh, te dolli ko wér kër Serigne Mbacke Khary Diop muy Serigne Mbacke Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall tey Serigne Cheikh Cokke ñu ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax te dolli ko wér moom itam moo jiite njaboot googu Euh, kër Serigne moodu Mbenda Fall tey sama borom dogal Serigne am di di jiite njabootu Serigne Modou Fall Mbenda waaye jiite njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na yàgg ci loxoom mu yàgg fi lool te wér kër Serigne Abdou Sakkoor Fall tey ki jiite njaboot gi di Serigne Fallou Fall moom Serigne Abdou Sakkoor moom itam di ñaan suñu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax te dolli ko wér kër Serigne Gunda muy maam Saliou moom maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii ki jiita liggéey bi muy Serigne Cheikh Fall Ngunda di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax eh, te dolli ko wér kër maam Saliou Fall bokk ak maam Cheikh Ibrahima tey jii Serigne Assane mu sëñ Modou Maam Fall moom moo jiital liggéey Serigne Saliou Fall moom itam Serigne baa ngi koy soññ bu baax a baax ci bis boobu mboolem nag ñi nga xamante ni dañoo àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall eh, xam naa dis ko mën a lim ci jotaay bi waaye damay wax na ñu njëkk a joxe seen bopp ca Gànjool ña nga xam ne bi Cheikh Ibrahima dem Ndar booba moom képp loon waaye ñi ko njëkk a jox seen bopp mooy mbooloo moom njëkk àndal ba ci ñi nga xam ne keroog bi Seex Ibra Faal di dem la doon wax sëñ Mourou Moussa Fall naan ko diw am na ngërëma yàlla gërëm naa ko diw am na ngërëma yàlla gërëm naa ko waaye diw ak diw ak diw am na ngërëma yàlla waaye wàcc gëm la Moussa Fall dana leen wàcce ba xam ne ci mujj Cheikh Ibra Fall lañ ñëw ci loxol maam Cheikh kenn kon képp ku a topp Cheikh Ibra wala sa maam a topp maam Cheikh Ibrahima Fall bis bi Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg ngir ñu ko yàlla sëriñ bi koy woo di ci woo njaboot gi yépp itam loolu moo waral nag euh, daayira Jazbul Murid bi lëkkale sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi te Serigne Modou Fall mii toog moom sëñ Amdi Yaasin moom Cheikh Serif Assane jiite leen eh, taxaw taxawaay bu am solo ànd kook nag mboolem ñi bokk ci njaboot gi yëpp te bokk ci biir daayira bi waaye ci seen mag yi nga xamante ni bii nag ñoo na ci seen kanam tàmbale ko Serigne Fallou Fall moom sëñ Modou Aminta eh, nga xamante taxawaay bu am solo am na ko ci sëñ Moussa Fall Mbar Serigne Cheikh Fall Ndigal Serigne Fallou Fall Cheikh mu sëñ Cheikh Fall Khady Gueye eh, Serigne Cheikh Khadim Fall ak ñëpp ñoo xamante ni bii rek ñu ngi ci biir liggéey boobu sëriñ bi euh, mi ngi ko ànd ak ñoom ñu teg ko ci nag kanam mu ànd kook njaboot gi nga xam ne ñu ngi nii toog kenn ku ne da nga dégg kàddoom waaye ñu bi nga xam ne fédération maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko def Zikrula boo xam jàmbaar lañ lool ñoom itam di sëriñ Mout Ndiaye muy nangu ndigal ñu a nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ñu nekk sa wet di la taxawu ci liggéey bi waaye ànd kook nag yàlla yi muy sikkarkat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall te tey jii sëriñ maam Cheikh moom Cheikh Sërif asan jiite leen ànd koog nag mboolem ku tudd yàlla ci biir kër Cheikh Ibra Fall moo xam ñiy sikkar aw moo xam ñiy benn benn ñëpp benn kuréel lañ def nosu rek barki dem moo njaare indi nañ fi liggéey bu am solo jébbal ko ki nga xam ne mooy sëñ Amdi Modou Mbenda kon daal kurél yëpp ci biir kër Cheikh Ibra Fall ci ëtt maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoom ñëpp nosu nañ doon benn buum tey jii ñu ngi toog nii jàkkaarloo àddina fas yéenee waxtaan ak ñoom yitte ju kawe ji nga xamante ne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha eh, def na ko ci bis bii nga xamante ne bii sant na ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda itam moom itam yitte ju kawe ji nga xamante ne bi def na ko ci seriñ bi ci bis bi tay bi ak kàdduy sëriñ di Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda euh, ci di jëm ci bis bi ak wàccaay wi eh, ci kàddu sëriñ Daam bi nga xam ne moo yore kàddoom su ko defee ñu àndandoo kon teewlu kàddu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu. sëriñ baa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi sangam bu baax ba di Cheikh Ahmadou Muntaxa di ñaan sama boroom yàggal ko fi te wéral ko. di nuyu mboolem njabootug sëñ Tuubaa gi rek fu nu mën ne rek te di leen siyaare bu baax a baax. naka noonu mi ngi nuyu mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi muy njabootug boppam di leen siyaare te di leen ñaanal sama borom kattanal leen ba ndigal yi ñu mën koy jekku saa su ne noonu ko sëriñ Mamoun waxee nag jëw jëwriñ yi teew danoo teew si ndigalul sëriñ bi si ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi jox jot na ko mu bàyyi ko si Cheikh Modou Mountakha ngir bis bu màgg boobu nga xam ne moom la ñuy waajal di ñaar fukki fan si weer wii ñu nekk mu tolloog àllarba fee sa kër Cheikh Amadou Bassir gi si Darou Minam sëriñ bi waxoon ni da see bëgg a sant yàlla sunu borom si turu yàlla njukkale ko maam Cheikh Ibrahima Fall muy bis màgg boo xam ne bii dafa aaje nu waajal ko ndax du lu ndaw looloon looloo doon mm, sababu sëriñ bi tànnoon si jëwriñ yi muy ñi nga xam ne ak njabootam lañ ñu ñu saytu si njabootuk Cheikh gi kuréel goo xam ne gii dana nu waxtaan. ci lépp lu jëm ci luy mën a ñoŋal bis boobee ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee njaboot googu nag ñoo teew nii ci kanamu sëriñ bi kon sëriñ bi mooy feddali ak di wax mboolem taalibe yi fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax mboolem jullit yi ak képp ku am yéene ñëw teew ci ñii nga xam ne ñoo teew fi kanamam sëriñ bi moo leen tànn ngir ñu taxawal ko ci lépp loo xam ne mooy tax bis boobu yi mën a mel ni ko sëriñ bi bëggee kon waxtaan wi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ñu xam ne ndigalul sëriñ bi la lépp lu si bàyyikoo rek kenn ku ne na xam ne loola mooy ndigalu sëriñ bi loolu muy bëgguk sëriñ bi te jubluwu si lenn nag lu dul sëriñ bi nga xam ne sangam bi nga xam ne moo koy liggéeylu mu am si mbégte la mu si yaakaar ak la mu si séntu lépp mu am ko ndax bu ko amee rek noonu leen si bëgg lépp daanu ko am kon nag sëriñ baa ngi leen di ñaanal di ñaan liggéey bi ngeen tàbbi si ak bisimilahi rahmaani rahim te li ngeen li ngeen si jëf rek yàlla dëppoo ak li nga xam ne moo gënal sëriñ bi kon kàddu gaa ngi noonu euh, sëñ bi nee na ngeen dem wéyal liggéey boobu ni nga xam ne noonu la leen ko digale euh, ngeen doxe ko noonu ndax li mu si bëgg lépp boo ko amee rek mooy sëriñ bi am mbégte si liggéey bi li mu si bëgg lépp mu am ko kon na leen sama borom jàppale barke maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ci leeral yu am solo yi am xam Serigne Dame moom Serigne Cheikh Modou leeral na ko eh, loolu moo waral nag ñu toogoon tey ci plateau bi xam naa Serigne Modou moom Serigne Amdi Yacine la ñuy jox mu nuyu mbooloo mu jàkkaarloo ak eh, nun moom nag mooy indi mooy waxtaan ci njëriñal tur tudd yàlla su ko defee su noppee ñu jël Serigne basiiru ñas moom itam mu leeral ñu nu taxawaayu daayira Zikroulah moom itam kenn la ci moo yor kàddu sëñ maam Cheikh mi jiite liggéey bi moom mu leeralal ñu ban wàccaay lañ am ci bis bi ak nan lañ ko war a waajalee ñu dikk nag ci ñaareelu jotaay bi nga xam ni ñoom it kilifa yaa ngi toog te kenn ku ci nekk dana ci am kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki eh, biir réew mi ak bitim réew maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal noonu lañ koy ñaanale jëwriñu murid bu mag bi Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina sëriñ am di mi nga xam ne moo ko fi nekkal ak mbooleem buntu kër yi sëñ Mamour lim léegi ak mboolem cheikh yi ak mboolem taalibe yi ak soppe yi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax ci turu sëriñ bi xam naa di nuyu sëriñ maam cheikh mii toog ak mboolem njaboot gi ñu fi toog ñëpp wuñ kenn di nuyu mboolem waa daayira Jazbul ñoom it ak euh, sëñ Mun Njaay ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi rek ndax kuréel gu nekk ci biir kër yi am na ay jëwriñ yoo xam ne ñi ngi teew fii ci jataay bi kon nag loolu day firndeel ne jataay bi yitte ji nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox ak wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox buñ ko mënta jox yooyu yëpp tamit yaakaar naa ña ngi cey jéem seen kéemtalaay kàttan ndax dañu di ci def ay réunion di ci waxtaan ngir nan la ñuy def ba jekku bis bi te ni ko sëriñ bi bëggee tamit noonu lay amee ndax euh, li nga xam ne moom la sëriñ bi woote muy turu yàlla muy turu yàlla te turu yàlla bokk na ci li nga xam ne moo gën a gaaw àggale jaam bi ci sunu borom subhaanahu wa muy baat boo xam ne moom la ñuy xàmmee ci nit ki ne ab jullit la wala du jullit te bu ko nit ki xasee wax danañ jàppe ne kii ab jullit la waaye bu lànkee bañ ko wax dootuñu ko jàppe ab jullit te sëriñ bi leeraloon nañu si ne képp koo xam ne ni gis ngeen mu wax ko bu ngeen ko jàppee am noon neen ko jàppee ab soppe falaa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu képp koo xam ne nii gis ngeen ko mu yox laa ilaha illa allah na ngeen ko def ab soppe na ngeen ko def ab soppe kon ab soppe ni nga ko war a jàppee yaakaar naa doo ko lor te foo toll lu koy jariñ ci ngay dox te lépp loo xam ne nii tamit lu koy jariñ la tamit doog ko xañ kon tur yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ñu tuddal ko ko muy turu yàlla moo gën a màgg ci lépp lu ñuy tudd lu mën a doon ndax boo xoolee ci masaalikul jinaan euh, sëriñ bi mi ngi ci doon leeral ay waxam yu baree bare mu jëm ci pour yàlla ndax dafa waxoon nañu ama dawaamu zikru fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridun yuksiru xad xultu saalika bila israari wala ubaali bi zawil inkaari fa kullu man saalani fali jawaab xabla wala tujaadiloo ahlul kitaab sëriñ Touba radiyallahu taala anhu dafa wax ne lépp loo xam ne nii ñu ngi koy tudd ak lu mu mën a doon rek turu yàlla moo ko ci gën a màgg muy laa ilaha illallah daan ne loolu dama koo wax nag te yëluwuma ko maanaam yëluwuma ko mooy waxuma ko nànk waxuma ko nànk mooy ca kaw laa ko wax te képp koo xam ni taxaw nga ngir bëgg maa weddi tamit faale wuuma la wala ubaali bi sawi inkaar képp koo xam ne laaj nga ma ne lii nga wax fan nga ko teg booy dugg wala tujaadiloo ahlul kitaab suñ borom mi ngi naan ci wala zikrullahi akbaru kon foofu laa teg ne lépp lu ñuy tudd lu mën a doon rek turu yàlla moo ci gën a màgg muy tur woo xam ne nii tamit képp koo xam ne nii yegg nga ci suñu borom ci turu yàlla ci nga sax ba yeggut suñu borom loolu tax na Cheikh Mouhamadul Mountakha am na bis bu mu woote woon muy njàngum xasida tey jii mu woote bis boo xam ne nii muy tudd yàlla kon loolu dañuy firndeel ne du asaar ndax pas-pas ba nga xam ne moom la Serigne Touba jaaya Cheikh Ibrahima jaayante woon ak Serigne Touba ba ko Serigne Touba tontoo lam ko tontu ci minanu Baay Xadim yaakaar naa ku yër téere ba ku ne gis nga ko te loolo lañ cay dégge mooy maag yow ñoo bokk pas-pas pas-pasu Serigne Touba fam toll ak nam rëye nga xam ne ku ko yàlla xamulul mënoo koo xam te xam ko sax yombut Serigne Touba wax na Cheikh Ibrahima Fall ne ko maag yow ñoo bokk pas-pas ndax ba ko Serigne bi waxee ne ko. ba ko maam Cheikh Ibrahima Fall ne euh, dara taxumaa jóge sama kër lu dul àgg ci sëriñ boo xam ne moo may eggale ci yàlla sëriñ boobu nag danaa gis ci moom leerug dëgg goo xam ne dana dindi lëndëmi mbindeef yi te kiimaanu yàlla mu dëgg ma yit di feeñ ci moom bu wér te man su ma gisuloon ku mel melo yi lu dul ñu ne fii lañ ko denc sama yéenu ju dëggu dana ma jotal ci moom la ma bëgg daan ne ko wa inni ubayyuka ala an la anza min ad dunya bi shahadati innama hamillah wa daarul aaxira Cheikh Ibra Fall daal di wax Serigne Touba ne ko sama yitte mooy maan adduna lu toll pepp karaw bëgguma ko fi sama yitte mooy yàlla ak kër gu mujj mujj ka mu yowmal xiyaam loolu moo nekkoon yitte yi Serigne Touba moo nekkoon yitte yi maam Cheikh Ibrahima Fall ci kër Serigne Touba waaye Serigne ba la ko tontu mooy Ibrahima maag yow ñoo bokk benn pas-pas. te loolu jàngari ci am bari na lool maa yow ñoo bokk benn pas-pas loolu ko Serigne Touba wax Serigne Bassirou moo ko nettali ci Minanu Baaxil Xaddim maa yow ñoo bokk benn pas su ma ñëwoon fii ñu ne ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn jeexital bu mu fi bàyyi nga xam ne alxuraan néewu fi xaddis néewu fi ak yeneen yu baree bari ci niñ ko mën a jàngate mu leer ma asamaan si daan na ko tiim daan na dox ci suuf si kon sama yéene ju dëggu ca moom dana ma jotal la ma bëgg waaye maa ngi lay xamal ne adduna bul yaakaar mbaar mu la fi may ker waxuma la ay njaboot wala ay soxna wala ay doom loolu lañ jaayante woon kon lañ ciy dégg mooy maam Cheikh Ibrahima Fall jaayanteem ci kër Serigne Touba adduna taxu ko woon a jug yàlla moo ko taxoon a jug ba yii yëpp fekk ko ci yàlla moo ko taxoon a jug muy koo xam ne nii ndax bi mu nekkee ci kër Serigne Touba euh, sikkar sii nga xam ne moom la Serigne bi woote moom la saxaloon loolu la ñu suñ Moussa wax nañu moom de ba nekkee ca kër Serigne lam fa saxaloon mooy yendoo liggéey fanaaneeroot te yendoo liggéey fanaanee loolu da nga ciy dégg ne Cheikh Ibra musta dallu benn yoon musta dallu benn yoon moom xamoon na la ko tax a jug te xam na fi mu nekk te xam na na muy def ba jot sax kon yendoo liggéey fanaane ñun ñi kenn ku ci nekk boo yendoo liggéey da ngay fanaane nelaw wala nga yendoo nelaw wala wala guddi nga nga nelaw ko bëccëg gi nga yendu koo liggéey waaye Cheikh Ibra nag moom lam da nekk woon ci kër Serigne Touba moom mooy yendoo liggéey fanaanee root te loolu lañ cee mën a jàngate yaatu na lool xam naa jataay bee xat-xat bi ak ñi war a yëkkati ay kàddu dana mën a tax lañ ca wala jàngat bañ ci am dëgg-dëgg danañ ko xaw a tënk foofu waaye nag la la la la moo fa saxoo sikkar lan mooy sikkar ak it euh, turu yàlla ndax moom daa ñëw rek ëndaale ko wala da ko fee fekkoon ak bi mu ñëwee ba agsi saxal ko heure bu ñu déggee ñu tudd ko xel yëpp dem ci moom loolu lan moo ko waral kon loolu day mel ne am na ay gis-gis yoo xam ne nii kenn ku ci nekk jàngat ma ngi ciy war a jàngat ca sa ak sa xel di ca xalaat dangay xam ne moom turu yàlla sunu borom ci bopp moo ko jaaral ci Serigne Touba jox ko ko. lu mu liggéey la ba moomal ko boppam ndax bi mu nekkee ci kër Serigne Touba di fa liggéey turu yàlla wam saxaloon turu yàlla mooy li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha di woote te Serigne Touba lépp lu ñu wax lu mu mën a doon rek turu yàlla moo ko moo ci a màgg waaye bu fekkoon ne nit dafa nekk ci beneen bërëb sax beneen bërëb di saxoo yàlla di ko sikkar maanaam yeggale gi mu ko mën a yeggale suñu borom kenn xamul ni ni ni ni mu toll muy turu yàlla heure boo koy sikkar boole koog di ko teewlu li ñu ci sëriñ bi wax leer na li ñu ci sëriñ bi wax bari na kon nag turu yàlla bii nga xam ne moom la Cheikh mu Mountakha di woote ci eh, ci ci le 22 le 23 mu ne euh, nañ nañ ko tàmbali ci 4 ba 4 heures ci alxamis gi kon loolu ñëpp nañ ko commencé bàyyi xel. dañ bañ faa indi lenn loo xam ne nii wuute naa ni ko sëriñ bi bëggee ndax turu yàlla du ànd ak ay fo turu yàlla du ànd ak ay caaxaan turu yàlla tamit du ànd ak lu la neex nga wax ko lu la neex nga def ko si. turu yàlla day loo xam ne nii heure bu ko nit ki saxoo te dëggu si. bu bu bu bu yëggul fa mu war a yegg rek da ko caaxaane tur yàlla heure bu ko nit ki nit ki dee saxal te dëggu ca heure bu ci yeggul fa mu ca war a yegg rek da koo caaxaane ndax tur yàlla ñaari waxtu dong yu dëggu mën naa yóbbu nit fu mu ko mën a yóbbu ci àdduna ndax dalay dalay dalay jege ci dalay jëlee ci paye bi gën a suufee yeggale la ci paye ba gën a kawe muy laa ilaha illallah muhammad rasulullah te bokk na ci li nga xam ne mooy tëj bunti ah, bunti asamaan asamaan am na koy tëj xam naa loolu yeneen i waxtaan la waaye daal bokk na ci li koy ubbi mooy tur yàlla boo boo xasee tudd turu yàlla rek bunti asamaan yëpp ubbeeku nañ kon turu yàlla bi nga xam ne moom la sëriñ bi woote xam naa lañ ca war a wax mbokk yi teew nii danañ ci mën a àggale li ci bëgg àggale dañu ci joxoon rek ngir ñu am tuuti luñ ci laytaaye waaye suñ kilifa yi war a ñëw war a àggale jataay bi xañ na lañ ci war a yeggale yëpp ñu ko war a yeggale incha allahu taala jërëjëf. sëñ bi fi mu maanaam njëriñ li nekk ci tudd gis nañ saa su nekk ne loolu mooy seen doxin ndax euh, daayira zikur la daayira bi nga xam moo jiite mboolem tuddkatu yàlla yi mboolem ku tudd moo xam ki koy yëkkati moo xam ki koy yàlla moo xam ku lu mu mën a doon rek ci sax ñi nga xam ne sax dañ dañ koy dañ koy dañuy wax dañuy wax di ko saab nga xam ne duñ wër nga xamante ne bii tur lu fi te loolu lépp gis nañ taxawaay bu solo bi ngeen ciy def te loolu lépp day bàyyi ko li sëñ wax léegi rek Cheikh Ibra da ci am cër bu yaatu cër boobu la Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, feeñal am na ku ma wax keroog ne ma sëñ Muntaxa lépp lu mu wax rek da nga gis mu confirmé mu ne kaa ah mu ne ma keroog ba mu ne Baye fan bu dëggal la ma gën a sama jëmm maanaam mu ne ma ak lii mu woote mu ne ah mu ne ma mu ne ma ma mu ne ma kenn xamul Cheikh Mamadou Muntaxa mooy gan maanaam lépp lu ma rek dana ko confirmé te te lii mooy firnde li dëgg dëgg dëgg dëgg ku ko mas xam rek teg na sa bët ci ne kuy dund maam Cheikh Ibrahima Fall ko teg na ci xolam mboolem ñi mu yar ci loxol boppam sax moom dafa feeñ fi ñoom defe naa ñu jaxasoo gaa yi fi su ko defee tur yàlla Cheikh Ibra ci boppam ne da ko daan nooyee defe naa ci waxtaanu Mouride Sadi wala si mu def laay wax na nee na am na bi sëñ Modou Moussa Mbacke fi ñëw te boobu ku bàkki dem ko tudd Ibrahima kan nekk lu fa nekk na la ko hmm. mu indee addiye ji Cheikh Ibra teg ko ci loxo sëñ Modou Moussa ne ko tudd gii ma yàlla waaye dama koy nooyee loola tey ku na ku di ku nekk loola ci ngay sax te yéen ñi ci ngeen nekk hmm. kon lan nga ñuy indi ci wàccaay wi wàccaay wi nga xamante ni bi tey waajal ngeen ko ci turu yàlla wi ak euh, nan la programme bi demee ci yéen nga xam ne yéen a jiite tuddukatu yàlla yi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke Cheikh Ibrahima Fall Baab Mudina yi fi teew ak kilifa ñu ne nuyu baax te dégg siyaare bu baax ñu ngi jiite ci nuyu beeg siyaare bi nag sëñ bi Fall mu sëñ Modou Mbendam yi fi nekkal maam Serigne Fall te ñaan suñu borom yàlla na ko gën a yàggal tuural ko. ba lim naan lépp ngi liggéeyal ko maam Serigne Fall mu def ko ni mu ko sobee tànn ko njaboot gépp barke Serigne Fall ba mu diina moom mi fi Serigne Fall nag ñu ngi sàkku mbégte bu baax ci ñaan Serigne Touba Cheikh Amadou Mountakha suñu borom yàggal ko te wéral ko ba lim naan lépp ngir liggéeyal ko Serigne Touba mu def ko ni mu ko sobee tànn ko murid yëpp barakati maam Serigne ba mu diina ñu ngi leen nuyu baax turu sëñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Sëriñ Assane moom maam Serigne Fall mi nga xam ne moo jiite daayira bi ñu xidmatu maam Serigne Fall bi nga xam ne moo lëkkale tuddkat yàlla yi fu ñu mën a nekk te nu saxoon ko itam ci ndigalul sëñ Cheikh Fall jëm yàlla ñu ko yàlla fayal te sama borom dolli ko baax ca foofu mu nekk ak ña fa nekk yëpp seeni xéwal barakati maam ba mu dina sëriñ bi itam ànd ko ak bokki tuddkat yàlla yëpp ci ñi nga xam ne mooy mboolem kuréel yi nga xam ne xam nañ leen te fekkoon lan fi itam fédération bi nga xam ne itam moom lañu fekk te sëñ Mun Njaay nga daan jiite ko ñu soxla ko ci nekk ko itam sëñ Mor Binta Fall ñaandu ko ak ñoom sëñ bi itam yàlla def bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Muntaxa mu baax mii itam joxe ndigal ci tuwal yi ni ko sëñ Mamoun leeralee ak sëriñ bi tombeek nag daayira Xidmatu Maam Cheikh Fall bu nga ne moo lëkkale tuddukati yàlla yi ci njiital sëñ maam Cheikh mii nga xam ne daara bi itam mi ngi ci réew mi ak ci bitim réew fépp biñ ñëwee di jébli si liggéey bi loolu sëriñ bi wax ci kàddoom ne yéen ko dañ fee tombeek ku baax ki woote woon joxoon fi ndigal ngir ñu tuddal ko yàlla yéen daayira bi nga xam ne nag yéen lëkkale tuggati yàlla yi ci kër Cheikh Fall kon liggéey baa ngi seen loxo ci wàllu yàlla wi ngeen fonk ko te jàpp ko te fexe ba li sëñ bëgg mu sëñ maam Cheikh tontu na incha allah bi nu jógee itam li sëriñ bi def mooy bi mu xamee ne ndigal li njabootug Cheikh lañ ko jox muy ñi nga xam ne dañ ca bokki deret ñi nga xam ne moom lañu yaakaar seen lépp ci lañ ko jaayanteel sëñ def na ay woote woote bi ci jiitu dafa woote ci bopp kër yi Cheikh Fall yépp mbooleem kër yi ma lay wax ku ne teewoon na fa mu ko njëkk ci waa kër maam Saliou Fall Daarul Xafoor yabaloon nañ fi ndaw ñu leen fi teewal kër Cheikh Mamadou Moussa Fall yabaloon fi ndaw itam yéen fi teewal kër sëñ Bassirou Fall moom maam Sarañ Fall yabaloon nañ fi ndaw leen fi teewal kër sëñ Mor Talla Fall yabal nañ fi ndaw leen fi teewal kër sëñ Mbacke Fall itam fi ndaw leen fi teewal kër sëñ Taw Asan yebal nañ fi ndaw yi leen fi teewal ñun tam kër sëñ Modou Mbenda yebal nañ fi ndaw yi leen fi teewal kër Cheikh Abdou Sakor Fall yebal nañ fi seen ndaw ñu teewoon fi ñoom ñëpp kër sëñ Mounda maam Saliou seen ndaw ñu teew fi ñoom ñëpp itam ñu bokk jataay mboolem Cheikh Cheikh Ibrahima yi nag ñi nga xam ne seen lépp dañ koo jaayante ak moom ñeen fi nekkal yabaloon nañ fi ay ndaw ñu bokk ñu ñëpp teew fii ci kër maam Serigne gii ndax liggéey la boo xam ne ñun ñii nga xam ne ñuy wax ak yéen liggéey bu toll nii ñu joxe ko ñu ngi koy doo gis ci àddina ci bopp kër Serigne yi sëñ bi itam ba mu koy digle kër gu ci nekk yabal na fa ndaw digal ko ko sëñ bi xam ne itam lu ñëpp bokk dañ koy waxtaanee itam doo ko yëkkati moo tax ndaw yi ko ne teewoon na bin teewee nag. ñu bokk tënk kese laay faal ndar yabal nañu fi moom itam seen ndaw ñu teew fi biñ teew ñu ñëpp nag lañu waxtaan ba tënk nag ni ko sëñ bi bëggee bañ ko tënkee ci turale itam tawféex ji am mooy mboolem ñu fi teewoon ku ci nekk genn kàddu rek ngay dégg mooy ni ko sëñ bi bëggee daal ànd nañ ci loolu mu mel ni kon la cay suñu mbir rek mooy saayir si moom fexe ba sëñ bi am ndam ci liggéey bi moom nañ ci jublu na baatin boobu moo ko war boppam loola nag bu mu amee ci la sëriñ bi itam di waxtaan ak njaboot gi ibbi buntam yëpp waxtaan te képp ku mu soxla waxtaanal mu waxtaan ñoom ba daayira bi nga xam ne itam moo jëf bu murit te lëkkale mboolem sëtti maam Serigne yi nga xam ne dañ koo namm liggéeyal te ànd mu boole ñu ñoom itam liggéey bi démb nag lañ amoon ndigal ci biir woote yooyu sëñ Moussa Fall moom sëñ Maminta yàlla ñu ko sama borom fayal tàggal fa sëriñ Fallilu def ci mat goo xam ne mboolem buntu kër yi ma lim bëri na ñoo xam ne ci matuk boppam moo leen woolu digal leen neen boo demee ngeen tënku ci loolu ñuy wax ba ñëpp ñu ànd ci moo fu ñu def dara lu ci ump moom ci boppam itam démb moo sàkkoon wax ne sëñ bi nee na ndaw ci ñoom wax nañ boo ko dajee ca kër si amul Muntaxa ga ñu wax ne ñu ko sëñ bi bëggee ak fu mu ko bëggee mu mel ni message yi jiitu woon booba aggun ci dëgg-dëgg yi ji nga xam ne ci la ñu xamee fii li ko bëggee ak ni lañ ko defee loolu démb la ca feeñ waaye sëñ bi itam bi mu dajalee tuddkat yàlla yëpp ñu bokk nasu ci génn buum ci ànd lañ jubloo waxoon ci loolu rek mooy ñu xam ne woote bii sëñ bi woote te jébbal ko njootu maam Saami Fall gi woote bu ne jaar na fi ndax sama mu taxaa bu mu toogee ba tey woote na fi nu bokk jàng alxuraan ña ko seq ñëpp di julit saytu ko ba mu am ci lam ci bëgg woote na fi itam jàng mbindum sëriñ bi ña ko seq ñëpp saytu ko ba am ci lañ ci bëgg bi mu wootee tur yàlla nag mu mel ni dafa da koo jagleel maam Serigne Fall mi nga xam ne ak yëngoom ak dalum lépp ci tudd yàlla rek la ne loolu itam moo war waraloon jataay yi ginnaaw bi ñu ci amee ndigal ak war ko waxtaanee ci biir loolu nag ñu bëgg leen leeral nag li nga xam ne moom la ko sëñ bi sante te ñu fas yéene ko defee noonu yi moo jarab tur yàlla wa lañ fa soxlawoo weesuwul ne tudd yàlla xam nañ ne mboolem bàyyi Faal yi ñu ko yi yàlla bind yépp ñu ne fi ci tudd yàlla lañ sax yàlla dafa may nag am ñu ko yëkkati am ñu may ñu di ko yalu am na ñoo xam ne seen xol yi seerafaat rek a ci nekk waaye seen buntu newul ci kër gi waaye tudd ko tuddkat yàlla lanu ñoo ñëpp dañ ko bokk ak ñoom am ci ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi am ci ñoo xam ne sax ñu ngi ci bitim réew waaye fu ñu bokk nañ ci daayira bi tey tudd yàlla di ko defee ni ñun ñu xam ne ñu nag ñoom ñoo bokk lépp taxoon sëñ bi nag woon ne li tënk nañ ci jiital mbooleem ko wuy si nga xam ne Cheikh Ibra Fall moo sëñ Tuubaa di liggéeyloo na nga xam na ngay wujjee ca lan bokk ndax yow mu ko wuy si kat war ngaa sàmmonte ak ki ngay wuy ji melawam bëgg ko ci kanam kilifaam war ngaa sàmmonte itam ak war ma jëm bëgg ko ko yóbbu ci kanam kilifaam yooyu yëpp sëñ bi dañ ko soññee tudd yàlla nag sëñ Maamun ni nga ko waxee sëñ bi leeralee ko noonu noonu lañu ci am moo yàlla mu ñu tawféexal def nañu ay tuddkat yàlla te kenn ko ne ci ñun ba ngay tàmbali di ko def itam cër bi la ci yàlla jox séentuwoo ko ci woon sax nag bëgg Seex Ibra Faal ak war a tudd yàlla moo ci fekkoon ba sa borom indi na ci ñi di ko tudd nag di dañuy tudd loolu ndimbalal sëñ bi la waaye liggéeyam day sax àggu ci loolu nag ki ko xam bu ñu ji day xam ne àlli jàmbur la ba borom àll ji moo ko woo nag di ko ci liggéeyloo su boobaa nag day sàmmante ak yéen yu bëgg a wax mooy day xam ne ki koy deflu moo moom alalam xam na ni mu koy defee xam ne itam ki woote itam moo barab bi mu ko defee xam na fi ñu koy defee kon dafa mel ni wujj woote bi rek mooy la ñu ci war ak sàkkoo xam ni ko sëñ bi bëggee ñu defee ko noonu looloo nag sëñ bi seet na ko ci anam yu bari ba tax na def nañ annonce yu bari itam ci bopp kër yëpp nañ lëkkale tur kër yàlla fa nekk ak ka leen war a jiite bopp yooyu ñu jël nag ñu war a jiit yàlla wi ñun ñu yor liggéey bi te seete ko. kenn ku ne xam na ba bu ne ka war a jiitu ak ka taxaw kenn ku ne xam na ko ci biir loolu nag bopp yooyu ñu jiital boo seetloo koo ca bàyyi rek mën a dem guddi gi waaye lu bokk nag nga xam ne kenn ku ne kon da ngay bàyyi xel ne liñ lay def loo ki na sa ki nga jiital sa kanam kooku mën na ko def kër sa gannaaw mën na ko def lu ngeen bokk la ci jubluwaay benn la mooy Cheikh Fall am nañu ci bëgg ci kanam sëñ Touba loola nag sëñ baa nga xamante du ko yàlla yëpp ne suñu wuysee ba noppi nekk na ko sàmmonte ak ña nga fekk ca barab tañ jox leen liggéey bi lan lay wax nga xam ne mooy kàddu sëriñ bi ku juwoon ñoom ci ndigal lu juwoon daal ndigalu sëriñ bi ndax ñoom la ko teg seen loxo te lañ ci tënk lépp wan nañ ko ko ba mu ne nii la baaxee ñu doog ko wéel am na itam ci biir barabu sëriñ bi di kër Cheikh Mountakha gi ñu koy defee ban waxtaanee ban wan mu itam nañ ko war defee dañoo saytu ne sëriñ bi dafa bëggoon kuréel boo xam ne. moom ci boppam dafay jàkkaarloo ak ñoom mel ne di xool ànd ak ñoom tur yàlla wi foofa tolluwaay bu diis la di tolluwaay bu doy kemaan ndax buñ na bàyyi faale ya la ñuy liggéeyloo ci tur yàlla waaye suñ tubaab mi ñuy liggéeyloo nag dafa am yeneen toog jàkkaarloo ak ñoom ànd ko ak ñoom te koy defee loola day comme ndaw coow xamoo kii wax ak yow loola nag réew na fi sëñ bi réy gu toll ni moo tax waxtaan yi mën a am ci biir loolu itam mu joxwaat ndigal ne kuréel bi ñu ko indilee des na kuréel boo xam ne ñooy nekk nag ca pénc ma wër jumaa ji ñoom itam di tudd yàlla ñuy nekk fii fi sëriñ di ko def ñu bàyyi xel ne ki woote joxe ndigal ki ko noppal ak ànd ak moom mooy ki jëfe ndigal li saa boo déggee ndigal jóg ki nangoo tax waaye ki gàntu musta tax ñuy digle sëñ bi digle nag moo digle ñu defee ko nii ñam bëgg ñu def ko nag nan bàyyi xel ci ne kim tànn moo ko def fii fi kanamam ak ñenu tànn ñoo ko def ci pénc ma ñoom benn atte jëfe ndigal rek cee solo ci ne ñàkk gi jëfe nag boo ñëw ba ci kanam sëriñ bi te amoo ci ndigal mënoo caa am dara ndax xaw ma gën kër waaye kër si Ibrahima Fall loo fi def lu mu nur nur lu baax jëfe nañ la digal moo gën ci baat boobu lañ tënku aji wuy si nii nag ñu xam ne ab Baay Faal moom ndigal sëñ bi foo ko mën a fekk jaar na ko bakkanam naka jekk ci loolu lan noo xam lan na xam itam mooy sëñ bi moom ñoo gën a xam penku ñun bàyyi fa lépp koo ci laaj penku mën na la koo joxoñ waaye soo déggoon ne sëñ bi joxoñ na saw na mooy penku noppi na noo xam ne foofooy penku saw rek la ñu xam suñu mbir dafa ne ci ndigal ëmbuñu ko ci nii lañ koy tërlee ci ndigal lañ ko ëmb Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom rek lañ bëgg te di ko roy tam doy nag bii rek bitti doy ci suñu lépp ci kàddu ndigal la teg ndigal li nag ki war saa bu diglee aji ki ñu war a digal saa bu ko jëfee wàcc na nañ bàyyi xel loolu baax kon tudd ko def yàlla buy ñëw la gën ca la ngay def mooy waajal sab xol ba xam ne fii kat fu ñuy dee ndab yi la nga fexe ba sa biir xol bii nga def ci laab goo xam ne da xam ne li nga fi bëgg a jëlee bu ko defee du yàqu te du taq danga ko mën a jariñoo loolu nag mooy tënku ci baatum digal bi su ko defee soo yegsee ña nga fekk sëñ bi tànn leen fu nu la fa war a jëm nanga xam ne fii mooy ndigal li fa la sa mbir ne sëñ bi nag nekk ci biir ak nekk ci bitti gi na nga am xol bu toll ni xam ne ndagam ka nekk ca bittim réew moo mën a woo sëñ bi mu wuyu ko asimaak dox bu bokk moom dëkk bi war naa am rafet njortu ne fu mu toll sëñ baa nga koy gis moo soxoog ndigal yi ak sàmmonteeg loolu tudd yàlla nag nii ko sëñ maam waxee léegi sa borom moo dogal ku ko bëgg def ci yitte am ci cër kuréel bii muy sikarlu ak daaj bi muy sikarlu am nay tur saa dajee saa bu ne nan leen saam dañ bokk xam ne façon sikarin wii lay wax te saam du tur yàlla ab dëkk la saxoo gun ko saxoo loola indi baatub nan saam te loola bàyyi fa lépp maas nañu xam ne seen saxal baay góor ñi moo ci am wàccuwaay boo xam ne loolu la yàlla dogal ci moom mu bëgg ko saxoo ko daan jaxasoo ak ñoom àggoon na ci su ko dee deflu day toog ci biir fu ñu koy defee bàyyi sëriñ moom wax ne sëñ bi sikar nañ ba tàyyi mu yable wax ne du foofu ñu dellu yëkkati mu ne du foofu de am na ci jataay boo xam ne moom bàyyi sëñ moo ko mujj wax ne ko ji bàyyi jibee ko ne nee ko moom mi xam fi mu doon nañu ko fa tegal rek ñu mën a continuer moom bu mu dikkee sëñ bi jël lu mel ni ndox wax lam ci wax jox ko mu naan bi mu naanee ne baat bi su fekkoon daa daa rajo dañ ko far montal ay rajo sëñ ne ko foofu la dund gum ko dund moo indi tur wi ba tax ñaan nañ leen saam turam yii nga dégg bu nekkatee bay riim ñu di ko tudd tere na ko ba tàyyi ba tàyyi wax ne doon ma ci dara bu ma tudd mu dem ba yàgg mu am ñu mag ñëpp daje xamal ko ne ko loo yàgg sàmm bu yàggee ngam cib cër cër bi la ci yàlla dox ba kenn mënu ci rëccee muñ ñu boole ko ca loolu rek ko ci moom moo ko ci indi waaye dug sàkkoom dug sàkkoom baabil murid diina foo maa dem ci àddina soo ko tuddee ñu xamul murid dañu xam ne Cheikh Ibra ngay wax waaye mosuñu ko publicité mosu ko wax boppam doo dem ba yëg ne kii mooy bunt bi nga xam ne ku ku nar a jël ñu sëñ bi ci moom nga jaar ñu ne ko bal dina kon loo saytu loo na ca def ci yitte fokk nga jot añ ba ñun ñu yàlla taw nag ñu dina tudd ba jàpp ne ñooy tuddkat yàlla yi nan xam ne am na ñu yor seen kurus toog te lañ cee amee ci yàlla ñun mënaguñ ko ci ba tey jant boo ko yëkkatee ba ñëpp dee dégg rek am na koo xam ne ca biir lalam ba mu la nga wuti woon ca yëkkati ko moom fa mu toog la ko fekk ndax sellal gu ko sellal ak man gu mu ko man di ko def yàlla moom foofu la ne am na nag lu ngeen wutee ak ki ko yàllu loola ki koy yëkkati ka koy dégg ko ci day def bu ko fayee moom fay ko ca ki ko nag am na lu mu la gënee yow mooy moom ngistal du ko ca fekk mukk ndax yàlla rek a tax mu di ko def loola ngeen ci wutee kon nag ku saabam borom dogal nga bokk ci ña ko yëkkati na nga sàmmonte ak xam ne alal ji la borom laaj ñun bu ñu koy tudd bëgg maam a Fall tax ak di ko ci roy moom moom nag lu ko sëñ Tuubaa defloo laaj ko ko mu laaj nu ko kon suñu alal ji ñu joxoon la ñu laaj ñu yóbbu ko loolu jarul ba nëpp ko réew li mu mooy fexe ba joxe ko ni mu ko bëggee def ko ni ko bëggee loolu mooy sax ci baatum ndigal bi fexe ba buñ ko bëtt te boo kenn def jëwriñ yi sëñ bi sàkk nag ngir ñu saytu ko loolu la jaral yow mi ñëw nag na nga xam ne ndigal leen sëñ jox jënd lu ko ëpp kon kon sàmmanteeg loolu loolu daal di suñu mamun mooy jotaay bi jërë ngeen jëfati jërëjëf sëñ Basirou Niass ci kàddu yu am solo yi macha allah ci leeral yi am na solo lool defe naa mboolem ñuy jàkkaarloo ak noonu dégg nañ kàddu yi te fas yéene dañ koo jëfe bu baax a baax a baax ñu ñëw nag ci ñaareelu eh, jotaay bi eh, dalal ci sëriñ Assane Fall moom sëriñ Odoot moom Cheikh Modou Moussa Fall moom mu war ñoo leeralal maanaam indil ñu ay ay kàddu ci lu jëm ci wàccaayu bis boobu ndax ni ma waxee léegi rek bis bi njabootu maam Cheikh Rahane Fall gi ñëpp dañ ko def yitte Eh, ba tax waajal nañ ci itam nag wàccaay wu am solo ngir ren ngir kenn ku nekk buy ñëw mën a defar jëmmam ndax loolu dafa am solo rawatina ñu lay tudd tudd maam Cheikh Ibrahima Fall waaye sëñ Modou Ndiaye Ngédiane danañ ci dikk moom itam mu wax ñu organisation ñoom ñi nga xam ne lu baree baree bari lu ñuy liggéey ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall lu gëm ci wàllu organisation bi lépp ci seen loxo lay nekk danañ mën a xam ne ñuy mobiliser Baye Fall yi ànd ak ñoom lé rek mën a tegu ci aw yoon ba li sëriñ bi bëgg mu am waaye dañuy njëkk a jox kàddu gi su ko defee mu leeralal ñu Eh, maanaam eh, yar bi ak teggin yi nga xamante ne bi kenn ku ci nekk booy ñëw ci bis bi war nga koo làmboo ndax eh, rawatina ku bokk ci kër Cheikh rafal bu ñu la gisee war nañu gis ci yow melaw yar ak teggin yoo xamante ne bi nga baal ma tuuti rek dama lay wax lu gàtt ku ñuy wax Baye Modou Wade jës bu ca mag ña la bokk neen damaa dem kër Baye Moussa Sall ca Mbàkke neen di waxtaanam sëñ Daam Abdourahmane nu romb ñu jëm Mbàkke mais bi mu ñu séenee daal di ñëw gaare ci bunt bi wàcc nee na ma daal di koy nuyu nee na keroog sax téeméer laa yor ci sama poos waaye bi ma sukka nuyu ko daf na ma jàkk ba mu yàgg na ma xanaa ci defaru Cheikh faal nga bokk ma ne ko jaar naa ca daara ji ca gëbbu de kon am murit képp fu ñu ko gisee rek war nañoo xam fa bàyyi ko ndax warta tuumaal ca kam jugee saa su ne da ko fu ñu ko gisee da war di sagal ndax lan mooy yar yi ak teggi bañ xam ne yow ci defar gi nga bokk ku mat a defaree la te maam Cheikh Ibrahima Fall loolu la fi nekkee woon su ko defee nag du ñàkk kon sëñ bi indil ñu murit bu nekk buy ñëw ci bis bi yar bi ak teggin yi nga xam war na ko làmboo ba daanaka li sëriñ bi bëgg ku ko ne jàkk xam na kii matale na ko ci jëmmam bi muy bàyyi ko ci këram bisimilah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim naqulu baada al ibtidaa bil basmala walhamdi wasalaati xala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp comme ni ko suñu ñi ñu jiitu woon defee te mooy jiital sëriñ Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal fanu gudd wu ànd ko wér waaye rek ci toftal jëwriñam ji di sëriñ Amdi Mbodou Mbenda ñaan suñ borom yàggal ko lool ba nu ànd liggéey bi sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall bi sottal ci loo xam ne xel daju ko woon noo koy sàkku ci taalibe yëpp di ko dagaan ñu ñaan suñ boroom euh, feeñal ci xar baaxam Euh, kàddu yu jiitu euh, dafa mel ni laytaay na lañ bëggoon a wax euh, sëriñ bi nag niñ ko waxee solos bis bi mooy tudd gi yàlla loolu la sëriñ Muntaxa itteewoo bëgg gi mu ko bëgg it jaar ko ci bunt ba mu ko war a jaar ndax bu ko indee ca tub maam Cheikh Ibrahima Fall miinoon nañ ko foofu kon day mel ne Eh, eh, li wala fi wax naan bàttu dellu na ca ndaa la loolu moo dellu siwaat lii nag cosaan la loo xam ne dëkk bii nu koy bëgg a jibalee incha allah le 22 miin na ko ndax bañ fi xamee eh, ay njaay àll xam fi ay sabi picc ak yeneen i ndegment wala ay rabi àll bokk na ci yeneen kàddu yi ñu fi miinaat. mooy tur yàlla wii di jaare ci nodd wala maam Cheikh Ibrahima Fall di yëkkati tur yàlla wii ci àll bi loolu nag day mel ne bu dellu siwaatee tey mooy cosaanul loola na ko ñëpp defuk barkeelu te xam ne loolu rek dellusiwaat siwaat ñuy ñaan moom moomee nga xam ne mooy boroom cër boobee lum ci amoon yàlla nañ ko sëriñ bi fàggul ci lii sëñ Muntaxa yëkkati indi ko tey ci tu maam Cheikh Ibrahima Fall bi baatub sikar nag ni ko ñëpp xamee yàlla suñ boroom mi ko moom moo ko ñoŋal ñoŋal gi mooy daa wax ne li gën ci li ko nit ñiy defal li gën ci li nit ñiy defal waxul sax wax li gën ci li ko nit ñiy defal mooy tudd yàlla ci moom ji te nee na moo xam suñuy jëf ginnaaw nag la yàlla tànn mu gënal ko ci nit ñi moom la Serigne Mountakha yëkkati eh, indi ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon de Serigne moom daa mel ne tànnal nañu la gën mu des nag ñun ñin tànnal li gën yoon wu ñuy jaar ba delloo ko ka tànnoon la gën jëmee ko ci nun nu ñu def ba moom lam ci bëgg mu am ko loolu Serigne bas yaatal na ci lu am solo eh, sëriñ Touba daa wax ne ci téere boobu ñuy wax ko Jinaan ne alhamdulillahi allazi minna talab ixlaasa saayin wa muraatal adab yàlla moo sàkku ci nit ñi ñuy jëf waaye nag di sellal jëf ji waaye sàmm teggin yi loolu mooy li ma waxoon léegi ne suñ borom moo aar baatu laa ilaha illallah bañ na ko ba dara raxu ko eh, loolee yëpp bëgg ko sellal rek ba bu ko bi waxee yëg na tudd na boromam loolu war a def ci moom jeexit sëriñ Mountakha taxaay ni mu ko soxlaa wax na ko mooy daa bëgg buñ ko dooree ci waxtu yu mu joxe euh, ne nañ ko door ba keroog muy jeex nee na tur yàlla ne moom a koy dog te mooy saa bu ñu déggee nodd loolu na ci ñëpp bàyyi xel te ñoom ay ndend lañ ndax tur yàlla mën naa dog tur yàlla la ëpp def daal mooy ñu dog ñu doglu sëriñ bi doglu si euh, sikar gi Euh, ni ñu koy waxeeti nodd gi jib keneen di wax leneen loolu moom lu ëpp def la loolu nag dafa niroog li sëriñ Touba daan wattandiku ci mbindam mi muy xasida yi te daana wax ne nañuy wattandiku bu ñuy wax ñuy bërxël ndax loole kat mën naa sabab ñu jël la sànni la sori foo xam ne bala noo xam ne jóge nga fa nga def ab diir loola nag ñëpp ko war a wattandiku sëriñ bi itam euh, li taxit mu jël lu mel ne lii di tur yàlla wi jox ko kii nga xam ne miin nañ ko ko te mooy maam Cheikh Ibrahima Fall mooy ni ma ko waxee woon léegi ñëw na fu miin sëriñ bi daa wax ne waxu damin aada bi zikri shakiri juloo son abdin fi makaani taari mustaqbila xiblati za taraboxi aw mutawaarikan kama salafaxi tey bara la isla taxloo majalisu zikri ida ma najlu an il malaikati bistimaay wa moomini jinni ala timaay lii ma bëgg teqantal mbindum sëñ Tuubaa mu wóor la mu bind ci téeram boobu ñu wax Masaalikul Jinaan nee na daa bokk ci teggin yi nga xam ne moom la ñuy sàmme sikar te mooy nee na jekk ci jataay boo xam ne pàkk bu sell la pàkk bu sell yi moom yàllaa ko xam waaye nag ñun rafet nañ njort ñun muriti Tuubaa ak mbooleem ko di Baay Faal ne ëtt bee Sëñ Muntaxa woote moom ñun ci pàkk yu sell lañ ko boole yàlla na ko suñ borom dëppalee noonu te loolooy li am kon day mel ni mucc nañ ci wëri pàkk bu set pàkk bu sell buñ sikkare am na ca ëttub Sëñ Muntaxa ba nee na jublu gi ndax xam nga euh, euh, sikkar si ay anam yu bari la ñay sikkar di wër loolu ab lim la ca waaye ku toog sëñ bi nee na jublu gi penku ci teggin nii la bokk Euh, moo xam muy góor ñi moo xam muy jigéen ñi su ko defee nga diwoo xet gu neex ndax loolu it ci teggini barab bi la bokk su loolu amee nanu siddaale ñi nga xam ne ay malaayika lañu ak ay jinne yu gëm suñ boroom yoo xam ne dañuy ñëw di xeeñtu si tur yàlla woowu di jib ngir ànd ko ñi nga xam ne ci ñoom lay bawoo lu mel ne loolu nag day mel ne kon suñ borom Euh, am na lam cay def ndax ginnaaw ci waxtu yooyu lay boole ay malaayikaam ak jinne mi gëm te loolu bët du la teg seen bët ñun am nañ taw feex ndax ndimbalin am ñun am nañ ay sëriñ soo xam ne ñooy suñu kilifa ci lépp te ñun bu leen sàmmalee war mag teggin rek sàmmal lañ ko malaayka suñu borom yaa ginneem yooyee kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel bu ko defee euh, li nga xam ne it day day day day day day day day kilifa yi war a ñëw xam naa ne loolu dafa ma leeral ko ndax dafa bokk ci yitte yi ndax bu ñu namee mu bañ am sorxo sorxo sëñ Bass wax na ko léegi dañuy fexe ba ñu ne fan leen jox ndigal ñu dem fa loola mooy tax mbir ma yéwén euh, sëriñ bi wan nañu na mu bëggee ñu doxalee ko am na ñoom xëccal boppam te mooy tuddikati yàlla ya bëggoon saa bu génnee jàkkaarloog ñoom wut nañ tam mbaar mu ne ci biir kër sëriñ moo xam ne dañoo bëgg kilifa yëpp daje fa yoo xam ne buñ egsee Euh, mooy suñu kilifa yi ku mel ne si am di Modou Mbenda ak jëriñam jee suñu Cheikh Ndiaye Mbengue ak ñi muy àndal ñëpp buñ dikkee waajal nañ leen barab yoo xam ne buñ dikkee foofee incha allah fa la ñuy fa la ñuy fa la ñuy fa la ñuy na ko xam ba buñ ko buux buuxloo ñoom buñ ko xat moom ndax ñun lu ci suñu cër ci suñu kilifa yooyu mooy weg leen teggin yi ñuy sàmmalu loolaa illa ji te bu loolu amee euh, dana mel ne loola dana tax euh, jàpp ni gën ci soxla woon am. ñeneen ñi nga xam ne tam ndax fu aw góor daje aw jigéen am fa loola tax alxuraan da ne wa man yaamal min saalihatin min sakarin aw unsa wa huwa muminun fa ulaayika yadxuluuna al jannata wala yasumuuna naqiran suñ boroom buy sédd cër ñi nga xam ne dañoo jëf lu baax du ràññee góor ak jigéen ku ne day xool rek la nga def ci lu baax mu fas yéene lu toll ne naqir da la ko da ca desalal kon pas-pas yi moom ak ndigali ci kaw ñëpp la daal muy góor ñi muy jigéen ñi te mooy waxtu woo xamee ñu ngi sikkar nga déglu boo mënta déglu nga roy kon ñiy sikkar te loolu mooy góor ñi su dee jigéen ñi sëñ bi sàkku na ci ñoom ñu wax waxin wu suufee ñoo xam ne xeetu yu wuñ ci miin ñu jël loolee wettalikoo ko ba keroog jotaayum ndigal bi di jeex ñu jóg te xam ne lu fa nit doon wut si rek am nañ ko ñoom ñooñee ñooñee tam ñu leen beral ab jotaay ca bitti fa jumaa ja am na am na jàkk ju mag am mbaar mu rëy moo xam ne fa lañ bëgg soxna yëpp daje fa su ko defee eh, loolu dana yéwénal liggéey bi ñi nga xamee it ne ñooy suñ kilifa yi ñaan nañ ñi nga xam ne ñooy eh, ñiy wommat ndaamaar yi bu ñu indee kilifa yi ba si nan xool fu yaatu fu nu mën a taxawal oto yi ngir sorxo sorxo nit ñi ak oto yi bañ a am ndax loolu mën naa indi eh, ab nëx-nëx ci ci taxawaayu liggéey bi te loolu yëpp lu mat a wattandiku la sàkku nan itam ñi nga xamee ne ñoom ñooy def wàllu urbain yi di dawal oto yi ñoo xam ñu indi nit ñi wala ñu leen di yóbbu nañu fexe ba seen riir moomu nañ ko dàndalee barab bi ndax sëñ bi ni mu bëgg a cellantoo liggéey bi ak ni mu bëgg a dégloo sikar si dara lu koy ruube ak wet gu muy jógee sëñ bi mi ngi sàkku ci ñëpp ñu wattandiku ko loola nag su ma tuddee oto yi waxaale naa saret yeeg lu mën di doon rek loo xam ne mën naa sabab baj baj am ca ni nga xamee ne it noonu la ñu waajalee euh, noonu la ñuy waajalee. Euh, jotaay bi adduna sëriñ bi woo. la sëriñ bi woo ku toll ni maam Cheikh Ibrahima Fall boo ko woowee saf gam saf yàllaay tax euh, la sam xel daj dana wuy si la sam xel daj dana wuy si loolaay sabab nag sëñ bi bëgg koo booleeg nag lam war a àndal lépp ci xeetu kaaraange loolu sababoon na muy woo ñi nga xam ne ñoo yore wàllum kaaraange ci biir réew mi. ci biir dëkk bi boole ci rawatina waa dëkk bi bu bis baa ñu ànd koog moom te fas yéene nag fépp foo xam ne buñ fa taxawee da loolu dana yéwénal liggéey ba ñu ñu ñu ñu ñu ñu am ci taxawaay bu mat sëpp ànd koog ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy taxawu liggéey bi. loola ab pàcc la ca waaye ñi nga xam ne itam ñoo yore wàllu paj mi te eh, ni ci biir dëkk bii. nañu waajal ndax dañu bëgg tam ñu wut lu mel ni ay xeetu antenne yoo xam ne dinañ ko teg ci mbooleem ñeenti gox yi nga xam ne moo moo moo moo moo ne ci penc mi ngir eh, yi xamee day dabe te kenn xëy mën nañ soo ko ba ne bàyyi xel ñaanuñ ko yàlla ñaanal sa borom teg lépp ci jaam ak salaam waaye nag bu amee ñu fexe ba gis ñu mën a xam ne dañ ko mën a daal di taxaw fa saase ba dara fitna du ci am wala dara jafe-jafe du ci am eh, ñi ngi wattandiku xam nga. lu mel ni bu amee mbooloo yiy jóg di ñëw di liggéey si ndax seen yéene ak seen cofeel ci maam Cheikh Ibrahima Fall buñ tënkuwut ci lii ñu doon wax léegi mën naa tamit sooxee liggéey bi waaye ñoom nañu fexe ba bu ñuy ñëw nanu fexe jaar ci ay jaaruwaay yoo xam ne du ayibal dara ci sikar si mooy nan yem foo xam ne bu fa yemee lan yor di ko joxe man nañ ko faa joxe te du indi benn baj-baj ci liggéey bi am na ñoo xam nag mii nañ lool buñ amee lu ñu war a joxe wëri Sëñ Moustapha Mbar ba gis ko jox ko ko ndax moom Euh, moo war a séddale tànga jeg yami àndal yëpp waaye damay bañ rek loolu sabab mu indi baj-baj joo xam ne bu fa eggee euh, ne moom moom bu ñu ko séddalee ci kanamam ak buñ ñu ko séddalee ci aneer ya benn pas-pas la ci am mooy joxe côté maam Cheikh Ibrahima Fall rek tax kon ñay def loola yéen nañ ko séddaale te xam ne loolu rek a tax euh, ñuy wax lu mel ne lii ñi nga xam ne dañuy defar lu mel ne ay kafe wala lépp luy tàng day soxla woon ñu koy tàngal ñu buggoon nag ñu wattandiku barab bi nga xam ne mooy urmi daaru mi nan ñu fexe ba tàkk-tàkk benn bañ fa am ndax loolu kat mën naa sabab bu ñu jógee bàyyi fa jeexit joo xam ne euh, du bokk li ñu fi fekkoon noonu te ñun ginnaaw mu set ak sel rek ay sunu wàll ca euh, liggéey ba loolu na ko ñëpp di wattandiku. Euh, noo ngi sàkku it ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jëwriñu liggéey bi ak mbooloo mi nga xam ne. ñooy ñooy ñooy ñooy saytu liggéey bi nanu fexe ba sàmmonteeg ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ bi joxe na ab wax na ci ñeenti waxtu ca ngoon la bëgg ñu ñëw door liggéey bi loolu nañ ñëpp def mat gu mat sëkk ci fekke jataay boobu incha allah waaye nag nañu am way gu tool gu way nañ am way gu mat sëkk ci waxtu moom wax ne na ca yem buñ ca dolli dara ndax li sëñ Bass mi wax léegi ndigal moom caabi la su bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi ginnaaw noonu la ko sëriñ bi bëggee ñun nañ fexe rek ba ni ko sëriñ bi bëgg demee noonu kon daal loolu laa jotoon na euh, bàyyi xel ci sama xel ci yi nga xam ne jàpp na ne bu loolu amee dina yéwénal euh, nañ ko bëggee la nga xam ne itam mooy mooy mooy liggéey bii nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko teg ko ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall moom loolu wóor na ko ne dana ci am ndam ndax ak ko amul ràññee la. ne sëñ Mountakha xanaa ñi ko xam ci at yu mujj yi waaye ku ko xamoon bu yàgg xam nga ne lii rek mas a nekk mbiram man mii di wax tey bokkoon naa ci ay tuut tànk yu koy jàngal xasida yoo xam ne da ko daan sàkku ci sëñ Saliou màggal ngoo ñuy def màggalu téeméeri at at mañ koy def ña def ci doon jàng ci sëñ Saliou la ko sàkku ji lu ci ne bu koy bu koy wuti ci barab da koy wóor ne am na fa te li mu ci bëgg dana ko ci am kon nag ñun nañ ci rafet njort te yëngu beeg bi ñu ci ñu fexe ko méngaleeg teggin yi nga xam ne moom la sëriñ bi sàmm la ci wet yëpp te ñaan ñu def ko nag ay at yu baree baree bare yoo xam ne bu bii jàllee ñëpp di ko yàkkalikee ko yàkkamti ngir xam ne njëriñ ya bari na te la ci la doon wut lépp am nañ ko ca wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. <laughs> jërëjëf sëñ Assane sëñ Assane Fall mu sëñ Udoot moom da bokk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di bokk ci jëwriñ yi nag daayira Jazbul Murid Euh, sant nañ bu baax ci kàddu yi leeral yi am na solo defe naa ko di Baay Faal rek euh, te te te sëriñ bi woo na la ci bis bi euh, dégg nga kàddu yi danañ fa yéene jëfe ko incha allahu ñu dem nag ci sëriñ Modou Ndiaye Ngéejaan mi nga xam ne moom itam dafa jiite nag daayira bu mag. tam muy daayira Zikrulaan nag mu ndigal te muy def fédération la ko sëriñ bi def mu yaatu lool moom itam ñu tànn ko ci biir jëwin yi nga xam ne ñoo war a yor liggéey bi ànd ko mboolem kuréel yi kuréel yëpp di benn kuréel nosu rek ci fas yéene jàpp ci ndigal li nga xamante ne bii sëriñ bi santaane na ko euh, sëñ Modou euh, lu jëm ci wàllum organisation bi nga xam ne ci bis bi ban wàccaay ngeen ci am ak nan ngeen waajale aw kon maamoon jërëjëfati kon ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam danuy dellu rek di jaajëfal Serigne Touba tey jarawal kan maam Cheikh Ibrahima Fall tey wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nuyoo bu tedd bu sell boobu nag ñu jiital suñ suñu kilifa Serigne Mourou Mountakha Mbàkke mii fi nekkal xaadimu rasuul te mat ko sëkk li ci teg sunu way jur sëriñ am di Muudu Mbend Fall mii fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall te mat ko sëkk matuk saay rek gu baatin nag <clears throat> di nuyu ñi toog ci jotaay bi yëpp da leen jaa jëfal ah, xam naa maamun mel na ñi ma jiitu ci kàddu te samay kilifa samay teg samay wax tege ci seeni wax dana nekk lu jafe nag dafa nekk baatum ndigal te ñun baatum ndigal rek la xaar ci kaw suuf kon sëñ Maamun bis bi li ko tax a jóg ak li mu làmb ak nin ko war a taxawee foofu nga ma woo bis bi de li ko tax a jóg mooy sëriñ Muudu Muntaxa mii di sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jullit yépp amel nañ ko njukkal waaye nag rawat na kër maam Cheikh Ibra gi nga xamante ne ñoom seen pas-pas ab jàpp ci sëriñ Tuubaa génnut bi xidmatin aw bi aw bi xidmatin aw bi aw aadiyaati génn ko liggéeyal ko ci seeni cër ak jox ko seeni alal te bindoo woow laata ko sëñ tubaay bind da leen cee fekkan ñu doon ci dox sëriñ mu Muntaxaa nag bi mu dikkee te toog toogaay bi te dajeeg sunu jàmbaar ji doon maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na yàlla dolli ay leer ci moom muy sëriñ Cheikh Fall jëmb bi mu ñëwee def koo xamal ne ko maam Cheikh Ibra Fall day mu naa mu ne ma sama borom dafa def ci moom ay ngëneel mu naa mu ne teyit boroomu jagle la neenu boromuk jagle nag dees koy bàyyi ak ak jagleem ndax la tax sama boroom defal ko jagle ga loola moo ko xam jagle googu mu ko defal nag moom la indi ci biir kër sëñ Touba ànd koog moom sëñ Touba nangul ko ko muy benn point boo xam ne rotal na ko ci biir kër Cheikh Ibra muy bu ci nun lool dib sag ci nun lool sëriñ bi dikkaataat mu ne ko sëriñ Seex mu naa ah, mën ne ko man Mamadu Muntaxaa day Baay Faal bu dëggal moo ma gënal sama jëmbi bopp ji tey sëñ Tuubaa wax jooju nag Baay Faal yi war nañ koo jàngataan ba xam kon Baay Faal bu dëggal nan la war a mën a mel Baay Faal bu dëggal di moom ni mu war a mel mooy mu tënku ci ndigali sëriñ bi te bàyyi lépp lu sëriñ bi tere su ko defee rek dëggal ñëw na bis bii dugg jóge kër sëñ Tuubaa nag ñëw kër Seera Faal damaa wax ne borom xam yi war nañ cee wax. li tax ñu war cee wax itam li fi dugg day doonu lu tuuti lu rëy la ndax kàllimaatu laa la laa day suñ borom da cee wax boroom xam-xam yépp wax ci boo déggee alxuraan di wax na wala sikrullaahi akbaru wallaahu ya'lamu na tasnahoona suñ boroom daa wax ne tudd yàlla day moo gën fa moom lu dut moom kon liñ dugal ci biir kër gi réy na ki ko joxe wàcc waayu rëy na waaye ki ko joxit wàcc waayu rëy na kon ndigal lu rëy lu mat loolu nga xamante ne daa ëmb ma yërmandee jaamu yàlla yi kon nan lañ cee war a dugge ak nan lay war a nekk ci biir ak nan lañ koy war a mën a jeexale siyaara mi jox maanaam nag gëddaag ne ko sëñ Tuubaa ne ko ñëwal fii fi man di tudd yàlla saa bët bi dina xool su la sama loxo làmbee daj la nopp yi di dégg kàllimaatu laa ilaaha illallaah ma jàkkaarlook ñoom loolu day ku yaakaar ne lu tuut la tuutu de lu rëy la de waaye Cheikh Fall moom nga xam ne nag moom da doon jëfandikoo tur yàlla ba am ci ijaabu daaree ni am ci saxaadatu yi nii am ci nooru yi ni lan la daan wax ñi mu àndaleen ca jooja jamono ndax kalimaat laa ilaaha kenn du ci fo mu naa ah, mooy kenn du ci fo ci saayir si kenn du fo ci baatin bi kon nag lii nga xam nga ne sëñ Muntaxa ak bëgg na ma te mbir mi nan ci nan nan ko xalaataan ndax sëñ bi dafa jóg woote njàngum alxuraan ànd koog àdduna bépp amale ko fan ci jumaay Serigne Touba ji jogaat tam mbindum sëñ bi nga xam ne mooy xattu yaddi te sëñ bi wax na ne karaamatu xattu yaddi nee la ku bëgg xool samay karaama demal sama mbindum loxo sëriñ bi woote ci jël as jël benn jël benn pàcc bi ne sañ am sa jiiteel ko sëriñ bi ndax cëram ñëpp la am na ñeneen ñoom ca jox nag waaye loolu mbirum biir lu waxu rajo ak télé ñu defe ko ci pencum sëriñ Touba bi bi mu jógee nag ne loolu ma defoon da bëgg a jóg nag sant yàlla nag jooyal loolu ba loola mën a am nag muy kalimaatu laa ilaaha illallaah ki ci sama borom wuyu kooku laa jox wàccuwaay bi muy Cheikh Fall bi mu liggéey ci sëriñ bi wax ko ko itam sëñ bi rafetlu ko xam ne ab cër bu ngeen tàbbi na ci biiram te bokk na ko àddina kon sëñ bi maanaam mbir mi xaslu ko da yaatal ma bëgg ñu déglu ma sëriñ Amdou Fall mu dumbeen ne nee na cër bii maa ngi kër sëriñ Touba dugg kër Cheikh Fall maamam te mu jiite cër bi. tàllal na ci mbooleem ku di rakkam ab loxo tàllal na ci ab loxo mbooleem ku di doomam rawat na nag maanaam seexi Seex Ibra yi nee nañ waajal bis bi waajulug sayir ak waajulug baatin sëriñ bi nag boo gisee mu tànn sëriñ maam Seex Faal mii moom sëriñ Asan Faal jiite daayira sikkurlaay yi tànn maam Seex Faal mi nga xëyee moo jiite daayira jës bul mu riib teg ma ci man mu xeeb mii di sëriñ Moodu Njaay Ngejaan daa bëgg mbir ma nu taxawee ko taxaw saayir ak gu baatin ba lañ fay nose kenn du ñëw du ko yàq loolu nag liñ ca bëgg mooy suñu kilifa yi bu ñu ñëwee dañuy ànd ak mbooloo ndax ay boroomi mbooloo lañu waaye ca waxtaan nose nan nan def ay bat yoo bat si yoo xamante ne bu fekkee sécurité bi ñëw na itam dañ leen di booleek nag ci waa kër gi ñu xam suñu kilifa ba bu ñëwee ñu xam wàcc waaye leen di jox waaye foofu nag li fi bëgg a wax mooy kilifa yooyu bu ñu àndee ak mbooloo bu mbooloo ba daa bare te fañ leen di bëgg a dugal xajuñu fa itam ñu dimbalee ci ñenn rekk mën a dugg ndax sëñ Modou mën daxaa dafa noo wax ne fii fi la kuréel si bii nekk ma jàkkaarloog moom sëriñ ñu Baay Faal yi ñëw la ñuy lekk wax nañ ma ko ban gëstu dem nañ ba constaté ko wax na itam kuréel si bi nga xam daa dugg ba ab yoon jeex keneen war koo wuutu fañ koy dalal itam sëñ bi jox na lu ko ñooñu ñoom rek ñoo fay nekk bu ne fa kenn rax. maanaam li jëm ci wàllu pénc mi nga xam ne sëñ bi daa bañ góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo fa ñu bëgg jigéen ña nekk itam wax nañ nu ko fi ñu bëgg itam ñuy wër jumaa ji di ko wër itam nañ koy doxal itam wax nañ nu ko loolu lépp nag ñi leen xëy ñoo leen di wam di leen digal li sëñ bi bëgg dañ leen di jox ay bats ba kee ba wam bats yooyu kuñ ci wax nag nga xam ne ñu organisé noonu lañ ko nose te noonu leen ko sëriñ bi digalee nu bañ nag kenn ku ñëw ca bis ba di fa indi euh, sa sa soow xamante ne sëñ bi dégluwu ko beneen bi ci des saat am mu daa gaaw a daanu rawat na jël yi xew ci jamono te jël yooyu de ku ko indi foofee commission bi tànn na ay cadre yoo xamante ni danañ war dem ba jumaa ji lañ leen di pointé ku fa deful loo xëy ni jaaduwut da nga jëflanteeg ñoom kon ñooñu xëy dañu yor ay jël yoo xamante ne ndax ab murid moom faa moom ab jël waaye jël di daana yuuxu nag boole ci di gaañ ay nit nag ku ko fa indi itam wut nan matuwaay yoo xëy mu nan jàkkaarloo yow te duñu reposté loolu tam commission bi ma ko wax loo bat si ñu wut itam kuñ ko jox fañ la tàmbali loola yem loola fa nang fa yem sëriñ bi daal moom di sëriñ am ñu mudd mbenn ak i rakkam ak i doomam ak seexi seerafaal yi bis bii jox nañ ko wàcc waaye def nañ ko itte ndax seen kilifa yéen ko digal te fi mu jëlee digal li ak li mu ci bëgg dinañ ci teg sunu xaar sunu tànk tuwe moom am ko ni mu ko bëggee kalimaat laa ilaha illallah nag yàlla wax na ci jàll naa ko sëñ Tuubaa wax na ci ndax nee na wa man adama sikru mustahdira farabi wala ilaha in kadar nee tur woowu daal képp ko saxoo nee na naxi àdduna génn sa jum ak nax-naxi ëllëg jaamu yàlla ko toll noonu nag bu sa kilifa bëggee cee sant yàlla jox ko sa kilifa ne taxawee ko dinañ jaral lu nekk wa salaam. Eh, tubarkalla eh, jërëjëf Serigne Modou Ndiaye Ngédiane Euh, jërëjëf ci kàddu yu am solo yi ak leeral yi euh, surtout sax fi nga mujje noonu mooy lu jëm ci jëlli yeeg yuuxu yeeg yooyu ci biir te sëñ Assane doon na ko junj léegi su ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te xam ne daal mbir mi daal liñ ci bëgg dégg dëgg mooy lépp rek tegu ci aw yoon lépp ànd ak yar ak i teggin benn yëngu bañ a am ndax nañ bàyyi xel ne sëriñ bi daf ñuy sikkarloo tey it day toog jàkkaarloog ñiy sikkar kon foofu ay yar teggin rek moo fa war a am su ko defee di sant bu baax a baax nag di ziar tamit mboolem ñi nga xamante ne bii ci biir réew mi ak bitim réew ñoom it ñi ngi boobaak léegi bi ñu déggee ne sëriñ bi sant na ko njabootu maam Cheikh Ibrahima euh, saa su nekk ñi ngi laaj maanaam lan mooy li nga xamante ne bii moom la ñuy war a jëfee ci bis bi ndax am na ñoo xam ñu ngi koy laaj ba gis naa sax ndeysaan ñu bari ci bitim réew di laaj ñoom lan mooy seen ndax ñi ngi ci biti waaye bëgg nañ cee feeñ Eh, xam naa loolu du ñàkk nag nga dimbaliñ ci tuuti rek ba xam yéen ñi nga xam ne lu jëm ci wàllu réunion yeeg jotaay yéen koy fekke ba xam ndax mu murid yi ne ci biti te bëgg cee feeñ ci bis bi bëgg a jaarale seenu ñaq ak seenu liggéey eh, ak seeni bernde ci biir liggéey bi nan la ñuy def ndax dañ fan lañ koy jaarale pour mu ñëw ci ci ci jotaay bi. moom da xam naa ni ma ko waxee woon sànq rek day liggéey bu yaatu boo xam ne ñi ci am cër dafa bari sëriñ bi nag pas-pasam ak yéeneem moom moo warlu woon lépp. démb defe naa ne jataay yi mujjee amal loolu ci la la guddal jataay ba la bokk ndax jàpp naa ne suñu am ni Modou Mbène mii nga xam ne sax moom lay taxawloo liggéey bi daa mel tigu ko ca dara waaye nag xam nga lu baax moom lu baax la tudd ka amul taw tawféexi fekk jataay bi bu mën a jàpp ca sikkar sa te am as tuutam amoon yéen jëndale ko am ndox mu sedd mu ñiy sikkar serale seen xol loolu moom jàpp naa ne bokkul ak bokkut ak la sëñ ba di tere xam naa nag jotuma ndigal luy wax ne sëriñ bi nee na euh, nañ ci def lii wala buñ ci def lee waaye moom daal ci engagement yi boppam warlu na lu ca war a dem mu def ko loolu moo sabab sax waañ yu waa waañ yooyu nga xam ne lu ci ne am na nu ko waajalee noo xam ne sëñ Cheikh Abdou Latif dem ñu ci wax ak moom am na ci luñ ko ci cëralee euh, def naa soxna Bali Muntaxa euh, wax nañu it isbu tarxiya yi ak waa wilaaya eh, ñii ñëpp daal sëriñ bi am na lum sàkku ci ñoom ci ñu defal ko ci ay teraanga ah, waaye nag damaa defe ne la dugal kabawoo sura wala feneen fu man di doon ci biir dëkk bi yor ak kafem indi ko damaa defee ne loola rek xam naa ne mooy yóbbu mooy dugalaale keneen koo xamee ne nga am sa yéene te bëgg a tàbbal saw ñaq ci biir liggéey bi loolu daal laa defee xëy na nag loolu jëwriñ yaa ngi nii suñu ginnaaw. dinañu xool ñoom nu ñuy def ba euh, loolu ñu wut yoon wuñ koy jaarale ba bu dikkee egg fa mu war a egg euh, yaakaar naa ne daal loolu laa sama xel daj ci loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp rek di wax ne daal sëriñ bi jëf lay def lu jëf ndax li tax ma ne jëf la jëf moom day dugalaale kaddu di dugalaale maanaam euh, jëf ndax baat bi suñu borom jëfandikoo te mooy maanaam jëf. loolu moom wax mën na caa dugg jëfit mën na caa dugg kon xëy na ku am taw feexi fekke ko am nga taw feexi mën a bokk ca ñay wax waaye nag ku amul taxu feexe fekk ko te yéen a caa tabbal sa ñaqit jàpp naa ne loolu moom dina am bunt bu muy jaar ba loolee mën a xëy na nag jëwriñ yi bu ñu defee seen waxtaan dinañ xam fu ñuy jaar ba loolee mën a jàll incha allah sëñ Modou Fall jëwriñ yi jësul murit a ngi nii euh, sëñ maam Cheikh mee nga ne ci euh, Zikrula sëñ Modou Ndiaye nga jaan a ngi nii ñooñu ñëpp ay jëwriñ lañ yoo xam ne jàpp naa ne lépp loo xam ne bawoon na ci barab jëm si ci ñoom bu yegsee dina yegsi fi mu war a jëm kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Eh, jërëjëf sëñ Assane ci leeral yu am solo yooyu nga indiwaat eh, ci jotaay bi kon mbokk yi yegsi nañ nag fi nga xam ne fi la ñuy wàccee sunuy kàddu eh, kon bis baa ngi noonu ñu waajal ko àllarba ji ñu jëm tombeek ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre tombeek ñaar fan ak ñaar ci weeru décembre 2021 kon sëriñ bi wax ñu waajal turu yàlla woowu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mooy ki nga xamante ne bii moo ko sàkku ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina dafa mel ne am na yeneen kàddu yu sëriñ war a dolli. Euh, xam nga bërëb ban jëm si ni ma waxee woon léegi ci ni ñu ko waajalee ci xeetu sel cell gan fay fekk euh, sëñ bi mi ngi sàkku ci mbooleem yi nga xam ne ñoom la àndal ñëw def liggéey bi bu jeexee nañu def it tey nag bàyyiwaat barab ba na meloon wala mu gën a sel na meloon. loolee nag lu fay rot moo xam muy tàngal. bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu jëfandikoo sànni xott wa wala muy mbuusu ndox yooyu dafa maa taqal barab te xel yi di ko daj lu woyof la lu neex lu neex a tuxal waaye nag bu kenn fas fasee ne loo ci jël say aaju mën na caa yewee ne loolu mën naa tax dara du fa des kon nag ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp rek. Euh, waaw kay kon baax na ma nga jàlle ba liggéey report incha allah. Euh, jërëjëf sëñ Assane ci kàddu yu am solo yooyu kon mbokk yi euh, bis baa ngi noonu ñu waajal ko àllarba euh, di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 2021 Cheikh Mouhamadou Mountakha sàkku ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ngir ñu ñëw tuddal ko yàlla mbooleem Baye Fall yëpp ñi ngi koy waajal moo waral jotaay bii ci ndigalal sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda mbokk yi bis boobu itam xam ngeen ne di àllarba di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci la Cheikh Mouhamadou Mountakha santaane ngir ñu tàmbaliwaat liggéey bi nga xamante ne bii mooy stade bi ci Mbàkke nga xamante ne bii Cheikh Mouhamadou taxa moo santaane woon ngir ñu soppi ko daara tegoon ko ci loxol Serigne Cheikh Jëmm fal di ñaan sunu borom dolli ay moom bu baax a baax xam ngeen ne liggéey bi euh, dox na euh, lu yàgg euh, toll fii mu toll waaye tey jii Serigne Cheikh Jëmm ñibbi na fekk maam ja di maam Cheikh Ibrahima fal tey liggéey bépp tegu ci loxol Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall mbenn yàlla na yàgg ci loxoom ba mu jébbale caabi yi àllarba incha allahu tombeeg ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru ci lañ fa séenee ubbiwaat liggéey boobu ngir tàmbaliwaat liggéey bi kon ndigal li mooy suñu xëyee dañuy daal di dem ca eh, stade ba ca Mbàkke ngir eh, tàmbali liggéey bi suñ dee ba waxtu wi sëriñ bi soxla mbooloo mi muy ñeenti waxtu ci ngoon 4 heures la ñu wax ne ñëpp àndandoo ñëw ci kër Cheikh Mouhamadou Mountakha muy kër Cheikh Mouhamadou Bachir gii ci Daaru Minam ngir ñu mën a nag yëkkati turu yàlla yi jëm ak waxtu wa sëriñ bi ñaan eh, bu ci yàlla àndee ñoo ngi sant bu baax tey ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawfeexi maam Cheikh Ibrahima Fall wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh amiin Fall jërëjëf